Euh, dañ seetsi seet woon pour ñu waxtaan ak yow ci li bi àdduna bi mooy li Macron wax jëmee ko ci lislaam bi yow ban xalaat nga ci am. xam nga fi ñu toll képp kuy jullit rek. képp kuy jullit sa xol tooy na ndaxte Macron moom fi ñu toll li mu def nii euh, maanaam tooñ dafa tooñ tooñ sox boo xam dafa jéggi dayoo ba tax na euh, man bërki démb bi ma déggee démb bi ma déggee ñoom karima ak xale arrêté nañ leen ñun dañ ko yéex a ndax lool bu ñu ko yëgoon maa ngi dégg am na ñu naan sax tuuti ni dafa nekk waaye information bu jàlloon nañu xam ne ñëpp daan fa daje te ñun ñi ngi xaar fi ñu toll xam nañ kuréel yi nga xamante ne war nañoo woote jot na pour ñu def ñu dëkk yëpp def ñu génn daje place de l'Obélisque kooku nañ ci gaaw waaw waa jamaatu Ibadou Rahman ñoom ñiy faral di jiite yooyu maa ngi leen di lancer appel nañ leen woote te taxaw te man mii di wax xam nañ ma waaw oustaz Ahmed Sarr yéen ñëpp maa ngi leen di wax woote leen nit ñi génn ñu daje naqarlu ko mettitlu ko tey bu doon xeex la tey mu laaj ay jaasi tey dañuy génnee suñuy jaasi dem xeex bu doon tey dañuy joxe leen seen alal. am ñu dem xeex lu ñu am danañ ko joxe comme que dañ ko war a mën ci ñaar yi nag taxaw manifester naqarlu ko ak ni Karim def jël drapeau France lakk ko ñëpp di ko rafetlu nag beneen bi ci topp produit français man ñi commencé naa ko parce que man damay dem ci man Auchan fi ñu toll seen lépp booy naa ko kot nee naa oto sax total sax bu fa demee di jënd parce que commencé nañ yëg ñoom xeex boobu déjà te buñ ci teggi suñ tànk commencé nañ ko yëg ba ñu ngi commencé deltu ginnaaw man dama xëy rek ni sama waa kër lépp luy produit français bu leen ma ko jëndatee ak fu ñu ko mën a jaay parce que man damay dem ci Auchan yi di jënd mais arrêté ko waaw loolu dañ ciy yéeñ na ci Sénégal yi parce que ñun Seydina Mohamed salaa sallam moo ñu gënal suñu ndey moo ñu gënal suñu baay waaw kooku moom rek mooy taxaw ëllëg naan ummati ummati yàlla ni ko tey du bisu julli ramul ñu ramu lool ramul képp koo koo koo bëgg mu dugg mu dugg àjjana rek ma jël dugal fa kooku nag yemul la kenn moom moo ne anna minallaahi wal mu minnii jullit yëpp maay seen buntu keroog yomal xiyam kon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam duñ ko yemaleeg dara duñ ko weccee ak dara waaw kon boog fi ñu toll Macron na xamante ni xeex bii nag dana uuteeg yi fi jaar yëpp yëpp yëpp yëpp li ko Erdogan wax na xam ni bii dafa dana uuteeg yëpp te dama lay wax benn wax naa leen ci dolli benn affaire boo xam nit ñi waxaguñ ko xam nga lii lépp lan la dafa am benn projet bu ñu am bu nekk Afrique boo xam ñoom moom la ñuy gën a protéger nii muy li nga xamante ni moom la fi ay kon ay kon bëgg a def gis nga loolu ñu ngi ko fi ñu koy ja gis nga bis bu ñu ba état Sénégal bi jël ko instauré ko fii ci dëkk bi nañu xam ne góor jigéen franc-maçonnerie lu bon lu ñaaw ak lii Macron di utal yoon c'est fini suñu doom yëpp dañuy yàqu nañ leen jóg parce que ñoom lii ñuy ubbi ay buntu di wax nii fi ñu toll dafa am la film boo gis day am lancement yi ñuy def nii yëpp lancement la lii ñu bëgg a tabax fii nañ ci suñu dëkk bi ay kon jiitu ko ñu jël ay hectares jox ko mu nekk dëkk ci biir dëkk ñuy am seen carte dante bopp am seen aéroport bopp am seen monnaie bopp am seen lépp formation yi dafa nekk góor jigéen dafa nekk gis nga Sénégal dafa commencé yàqu-yàqu bu métti kon lépp lu ñu war a wax ci affaire diine yii moo ci jiitu waaw gàmm yeeg màggal yeeg ziyaar yeeg yëpp baax na kenn bañu ko mais actualité l'islam ni ko maam Abdou Aziz si daan waxee di ko toppee ñoom Baylaat di ko toppee ñoom maam Abdoulaye Niass di ko toppee maam Limaam ko toppee ñoom Boukounta ko toppee gis nga façon xeex boobu ba tey na ci ñëpp jàpp ñu koy xeexee parce que l'islam bi fi ñu toll ñu ngi koy xeex bu métti maam Abdou daan na wax naan ku nekk am nga ku la jooyal am nga ndey ba mu des diine sëñ Mbaye si Abdou Ndiol Fouta bis bu nekk mu fàttali ko kon mar ko noonu na xam ne xeex bii ñun fi ñu woonoon fi ñu toll ci marche on est prêt taxaw nañ te duñ ci teggi suñ tànk te duñ te deltu ginnaaw bay boo état Sénégal nag teg fépp ay gémi ndax France waaye bu ñu woote woon suba suba ñun ñëpp danañ génn bu laajee la quatre drapeau France li këram xurum xaq def man nii ku ma ko jox ma jiite ko bu ma ko joxee ma taal ko ci kanamu ñëpp ñuy gis bu dee dugal ci kaso bi rek bay boo nañ ma dugal ci kaso bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw merci ngeen jëf